su ma demee ba lay way xamal ni daanaa Muxtaar Ka la leen jaajëfal bu baax a baax a baax di leen kontaane bu baax a baax ñoom mbégteeg bànneex saa su nekk di leen bëggee seen émission bu mag nga xamante ne si nii fii muy daw fii di ah, Teuf Connection tarkaal ñu dalal ndaanaan ndaanaan la si li muy yëngatu ndaanaan la aussi si li nga xamante ne si nii si domaine bu mu nekk la muy wàllum théâtre si kanam tuuti la dama koy bàyyi rek mu ah, ne yi muy ah, Bada Djité waaye tarkaale yéen it mën ngeen bokk si émission bi ah, si ngeen dem si seen YouTube Teuf Connection di ko suivre en même temps wala ngeen dem suñu compte TikTok di ko fa seetaane en même temps damay bàyyi rek incha allah rabbi Bada Djité ñu dalal ko mu nuyoog ak téléspectateur bu Teuf Connection Bada maa ngi lay bu baax maa ngi lay fay bu baax di fay Sénégal yëpp di fay téléspectateur bu Teuf Connection yëpp ci mi ngi gis ngeen ne mu ne téléspectateur bu Teuf Connection yi gis ngeen daal kàlla li nga xamante ni si ne rek moom la nuyoo bu baax a baax a baax a baax leen kontaanee bu baax a baax a baax ñu déroulé suñuy émission bi euh, ñu njëkkanteeg waxtu bi ah, si suñu question bu njëkk bi nga xamante si ni moom la ñu posé Bada Djité Bada ñu bëggoon a xam lan moo ko war a dugal si wàllum ah, euh, théâtre man waaw théâtre hmm. passion la ci ah. passion la ci man loo bëggoon la depuis may nekk xale doon ko gis depuis may nekk xale ndaw di gis euh, ñu def émission xale yi daan am par mercredi ma ko doon déglu rajo ba di ma ko doon seetaane télé ñu def théâtre buur yi laa ko bëgg ma ko mm-hmm. bu nee ba commencé nekk mag nag mm-hmm. te ba commencé am tuuti mm-hmm. expérience ci fan laa war a mën a jaar pour def ko ci laa ko commencé en deux mille 2016 voilà nekk di def théâtre carrément bëggoon naa ko di topp ci salle bi 2016 nag laa commencé nag def théâtre waaw suñ bëggoon xam Balla Djité lan moo ko dugal si wàllum théâtre dafa xëy xëy rek un bon jour dugal fi wala dafa fekk ay parents yam yi nga xamante si ñooy jë ñoom ñoo ko jigee ñu nekk si théâtre mu neex leen aussi mu daal dugg si théâtre bi wala dañ ko poussé pour mu dugg si man de waxuma la samay parents sax mais mosuma gis ko sax di ko def théâtre waaw

moom présenté kilifa yu bari aaroon ba. Mm-hmm. loolu noonu. bu ah, ko nuyu nuyu soxnaam ko tax. Mm-hmm. léegi euh, dañoo gis Bada muy joué ñaari personnage lu si mel ni li nga xamante ni mooy personnage su euh, màndikat bi su dof bi lan moo loolu nga dugg si dañu laa neex wala da gis ñoo xamante ne si dañ dañ si joué euh, nga nga dugg si lan moo tax loolu. waaw lu mënti nekk ci théâtre boo ko yóbbu doo def mm-hmm. waaw boo ko yóbbu rek def. parce que boo ko defee te yëguloo ko sax li def kenn ko yëg loolu la mais dafa tombé rek tamit aussi mu ngi sa génn ci benn téléfilm ak ma joué benn personnage sexuel doof xëy na moom la nit ñi gën a teg bët quoi mais ñu ngi liggéey leneen ak leneen pare nañ tamit pour lépp loo xam te ni nit mel na noonu pare nañ pour mel noonu pour joué waaw pare nañ pour loolu quoi. suñ ko gën xam Bada ngaay gi rek la mos a dafay nga xamante si ni def na ko théâtre wala day day def sous région du du joué fenn ay su mel ni Dakar Thiès wala nu fa demee noonu. waaw man Dakar laa dëkk Géejawaay. Géejawaay laa dëkk te maa ngi nekk compagnie bu ñuy wax euh, foofu bët. waaw nga xam ne ñooy def festival Rabat Aroune moo jiite ko. Mhm. moom laay nuyu léegi ak soxnaam wax dëgg yàlla moo tax ma xam ñu bari moo yóbbu ci festival yu différent mais demoon bi nekk ak nit ñi foofu di def ay partage loolu mu yóbbu tamit ci ay partage yu bare bare dama formation parce que formation peut-être comme parce que dama nekkoon ci biir bët ak ku mel ni Abdoulaye nekkoon fa doon nekkoon ci biir salle bi. Mhm. mënu ma wax mooy directeur artistique bi mais peut être jamono yooyu waroon nekkoon nañ ci biir salle bi di jox lu bari xëy na mhm. mu nekkoon xaritu Ndiaga Mbaye di ko sees ne Ndiaga Mbaye xaritoo mhm. moom it wax dëgg yàlla maa ngi ko sant maa ngi dañ ñu gis léegi théâtre bu jamono jii nii muy que nit ñi léegi dañuy jouer théâtre di wane say cër ndax mën nañoo cité benn théâtre euh, yenn théâtre yoo xamante ne si amoon na fi ñoo ngi lan nga si a mën a conseiller ñi nii ñoo koy def ak ñi nga xamante ne si nii defaguñ ko lan nga leen conseil si loolu. waaw loolu pour ñu tamit leeral souvent ndeysaan te mu jooju noonu muy théâtre dañ koy toll. Hmm. théâtre ci kaw seen bi la. théâtre. bu ñu waxee théâtre sur scène kooku lu def lu ñaaw wala lu ko wax. léegi téléfilm dafa nekk loo xam ne lu ñëpp bokk na àdduna na lu ñuy loo xam ne sa dëgg da nga li nga xam ne yow saw askan da koo bañu jéem a def mën a kan xam nga dem xooli keneen nga jéem doon kooku noonu mais ni ko kooku defee nga koy defee te doo soraale sa askan léegi nag li ngay yàq mooy ëpp li ngay defar léegi koo xam ne jëmm rek ko ñor muy lim muy lim ci am waaw muy am moo ko ñor loolu rek moo waral. Mm-hmm. na pour def mm-hmm. mm-hmm. ko dara. sa biir wax damaa dégg nga ni euh, théâtre sur ak li nga xamante ne si mooy série lan mooy différence bi. waaw xam nga théâtre buñ ko waxee. mooy scène bi ñuy taxaw waaw foofu xëy na fa lañ gënoon a sax. nekk ñun foofu lañ gënoon nekk parce ci lañ daan leen bëri ki def théâtre ci scène nag amul cinéma amul téléfilm lu mu doon boo ko woowee def loo ko def ci saasi mais ki nga xam ne dafa tëb di def téléfilm boo ko tegee ci kaw scène di joué mooy scène bi moo boole lépp scène bi dafa boole lépp mais moom nga ci soxla léegi nag kooku noonu xamul lu muy nangu muy bañ li muy xam mooy amee xaalis mooy waral pare saa yi. ayca mi ngi noonu tàkkaala gis ngeen li nga xamante ne si ni rek eh, décortiqué na ko waaye yéen i tàkkaala mën ngeen a dem si nga xamante ne si mooy suñu seen YouTube eh, Teuf Connection TV Sénégal ngeen dem like waaye tamit ngeen dem abonné waaye tamit di ngeen partagé waaye tamit direct ba fenn dong lay daw si suñu compte TikTok Teuf Connection TV Sénégal ba la fa demee di ngeen am émission yi live en Eh, ñi ñaar si ñu invité Badara Jite dañuy gis ni Badara yow da ngaa xaw a mandika du trop est-ce que yow doo doo man ndax sa personnage yi ni ngeen mandee tamit soo dee dox dañuy gis ni yow da ngay dox di kañ kañ quoi laata boobu laata ngay tontu si bi dañuy dem seetaan élément bi léegi léegi bu ko defee nga mën ko décortiquer bu ñëwee daal du yoon du man ngaa laa jom nga laa jom ngay wàcce ma fii nii fii fen la ni léegi nag man damay réer fen daa man duguma ci dëkk ñeent fukki ci pourquoi xam ko nangu de gis nga boo dugalee dugal dugal da ko rocce nasaat ko tooyal ko ba pare nag parce que noonu la ñuy ok kon ñu ñoo ko ñun yow gis nga bi ni nga ni nga seetaane élément yow lan ngay jàng waaw c'est-à-dire personnage la. Mm-hmm. personnage la dañ koy liggéey. Mm-hmm. oui comme li nga wax nii bëri na man am na ñuy dajeeg man di ma laaj naka ma mm-hmm. mais boo tasanteeg man xool ma doo gis ma mandi aussi tamit am lu ko lal koy da gis benn mbir nga sentir ko.

pour mu mën a dugg ci biir personnage waaw personnage tamit mhm. lu ñuy dugg mhm. def ko mais après boo paree loolu génnaat la ba set wecc mhm. waaw parce que boo xamee noonu dugg ci personnage si xamoon nga génnee moo war a yenn artistes yi nga dajeeg ñoom ci dara bi di gis ci ñoom li ngeen di si tere bi te fekk loolu bokkul ci ñoom waaw voilà euh, nit ñi dañuy taawale léegi personnage ak personne maanaam gis nañ Bada di jouer di rôle jël loolu mandikat ñu yaakaar ne Bada en réel bi noonu la mel en tant que yow loolu lan nga si gàtt xel. gàtt xel waaw bëri na ci sénégalais ñoo xam ne xamuñu personnage. waaw ak personne. mooy bu ñu gisee personnage bi ni mu mel. bu ñu gisee personne bi dañuy wàccee ne dem sama ko seet. soo benn kii mécanicien bi bu wàccee ne sama ko seet soo tenue tenue normal mu dem. léegi moment yooyu muy dox moom du mécanicien nit la rek. mécanicien waaw nit la. waaye nag moment yi nga xam te ni yaa ngi dem soo sa tenue sëgg ci suufu oto bi. wala. cameraman bi moment yi téye caméra bi nekk cameraman mais bu paree personne comme yow ah c'est ça. comme personne la nga ndax li nga wax sànq ne nga nit bu xësee bu mécanicien bu xësee bu sumeeku ba ba sol dem ba sangu ji ba sol si beneen yére nekkatul mécanicien. waaye imagine toi benn Moustapha Baro tey bu paanaloon benn oto si diggante bi si diggante boobu noonu ngay dem di di ko dem defari ji noonu mécanicien nga fa. da dem nekkaat mécanicien boo paree nga delluwaat nekkaat si bopp. nga dem ayca mi ngi noonu tarkaal la ëttu ndaanaan yaa ngi noonu ndaanaan la li wax à chaque fois ndaanaan la si biir ndaanaan yi xamante ni si kii ndaanaan la nga xam ni kii aussi li muy def triché wu ko ba dajite moo ngi noonu tarkaal la wax na fan la jaar wax na li nga xamante ni si ni tarkaal la moo ko dugg si wàllum ah, théâtre bi suñu bëggoon xam ba dajite ah, kan lay roy si wàllum théâtre bi kan ma idol kan waaw mun naa wax bu may Ndiaga Mbaye parce que moo ma jàngal boobu lu ma xam parce que man kaar laa nekkoon. bi ma jógee bët. Mm. damaa dem kaar. Mm. bët tamit aussi compagnie bu ma respecté la mm. damay arrêté. parce que yëngatu ma nekk fii ndax nangam nangam nangam nangam ma ko aussi. Mm-hmm. ci laa demee nekk kaar. waaw mm-hmm. mais mm-hmm. am naa ay nag koo xam ne dama ko bëgg. mu ci ay jikkoom ci léppam ci nangam ci nangam. waaw Moussa Kalam la conteur la waaw mm-hmm. comédien la waaw parce que comédien dafa am xam ne mm-hmm. na ñoo xam ne monologue la ñuy joué mm-hmm. am na ñoo xam ne du ñu joué te ay comédien waaw du ñu joué te ay comédien waaw noonu la demee. mu ngi noonu tarkal ba la jëlee dañoo gis fii nii si dawal ngaay mexe mu ubbi benn saalu théâtre pour jàngal ndaw ñi li nga xamante ne si mooy théâtre Euh, lan moo tax nga xëy xëy rek daal di ubbi loolu salle boobu noonu dañ laa wax pour nga tijj ko wala da ngaa jël aussi say moyens bopp rek nga boobu noonu pour jàngal la. waaw xam nga mbir ko mhm. bi may dem di dox ay jot ci sonnoon naa trop ci ko ñu defal loolu. waaye bañ ma ci mhm. mhm. loolu loolu bëgg. waaye wékkoon naa ko tamit bu ma gisul kenn ku ma defal lool ma ñëw di def li ma war a def ñi fa daje tamit man jàngalu ma leen de nag Sénégal am na léegi ñu jàngal ñu ñuy jàngalee théâtre te sumay xel nangu ko lool parce que ki ci génnee université bala moo jàngalee dem jàng ñu ñuy jàngalee kon jamono jii nii jërëjëf Babacar Sy bi ñun théâtre dañ ko bëgg ku ñu defal baax ñu ñu sant la ci xëy na ñun ñi nga xam ne ñoo ñuy jàng ñoo ñuy wan moom mu leen di jàngal ñuy jàngalee te ñooñu ñu ngi jàngal ñuy jàngalee kon daanaka théâtre moom mm-hmm. jëmm la bu taxaw ñii ci baaraam bi lañ jàpp am nañ ci loolu nañ ko téye buñ ko xeeb ñii ci loxo lañ jàpp mm-hmm. non bu ñu xeeb borom baaraam bi waaye nañ ko téye mm-hmm. ñu ko téye ci mbagg bi am na ko boot mën na théâtre demee dañoo gis ñu bëri dañoo dugg dañuy dugg si wàllum théâtre bi dañ si dugg ngir business ngir bëgg siiw mais ñii dañ si dugg aussi ngir bëgg am xaalis waaye ñii aussi dañ si dugg ngir passion en que yow lan lan nga wax si loolu noonu ñi nga xam dañ si bëgg ngir siiw ñi nga xam dañ si bëgg dugg ngir alal ji nga xamante si dañ dañ ko si am wala aussi ñi nga xam dañ si dugg ngir passion ak amour théâtre loolu la ci tax a dugg soo ko toppee te delluwaatoo bu yàgg mu dafa loo dafa gën a xam ne pour jigéen mu ñu problème mais la la ci tax a dugg rek bu yàggee mu dafa loo mais man de dama cee dugg ngir ñaar ngir jariñu ci ngir jariñu ci yàlla moo mm-hmm. ngir jariñu ci mm-hmm. waaye ngir rek moo tax mu ci mm-hmm. ngi noonu tàrkal bari jitee ngi noonu wax na li nga xamante si nii moom mooy nekk li euh, nga xamante ne si moom nga nekk fii di si doonu Ngaye Mékhé te am na ay artistes comédiens yu bëri bëri bëri bëri bëri bëri sa digganteeg artistes comédiens yi nga xamante ne si ñoo nekk si doonu Ngaye Mékhé lan la jàmm jàmm am ah, waaw ku ma ci soxla woo ma pour ñu liggéey ku mu ci munti doon bu ko tegee ci yoon bi liggéey yow loolu kese la. moom lay fréquenté du si. waaw lu man lay fréquenté bu dee fréquenté moom man lu man lay fréquenté. waaw mais nag amul sens interdit aussi tamit ci kenn mais ci lu ma waaye woo daal na nekk lu leer. Hmm. waaw parce lu ma ci waaye mu di woo tamit hmm. am naa ay kilifa yu ni woo. kon day leer ci sama bopp ma leeral ko ñoom ci seen bopp. bu ko defee après. waaw lu ci sant rek ma daal ko ci def. ñu ngi sant rek ma gis nga ba bu njëkk ba dañoo gis li nga xamante ne si bu njëkk ba dafa neexoon doxoon troupe théâtre yi foo quartier boo dugg am na troupe théâtre léegi ñu dem ba nga xamante ne si ni gisuñu benn troupe théâtre fii nii si diwaanu ngaay mexe aar bi dee fi ba gisuñu lenn loo xamante ne si ni rek nit la koo xamante ne si ni day yow moom. pare nga pour di groupe troupe yi nga xamante si ñu jóge woon nañ fi tasaaroo nañ fi est-ce pare nga pour dajalewaat yépp noonu pour def ko benn. pour loolu ko. Hmm. fii am na troupe théâtral muy miroir du peuple. miroir du waaw foofu laa nekk. Hmm. li ma jot a xam ma koy partager ak ñoom li ma xamul it maa ngi uti ñu ko xam ñu ñëw di ko partager ak ñun ñëpp ñu koy bokk di mais à part ça nag keneen tur boobu ñu ñàkk du ma concerné. du la concerné parce que li ma tolloo doole rek te man ko. ci loolu laay nekk li ci des moom intéressé Samba amal ni Samba poning yai sumadene balewe amal ninana nage nana sabala mangoning yai sumadene balewe